jotati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu Serigne Darou Assane Ndiaye gaaw leen gaaw ngeen abonné si Darou Ndiaye TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu yi ngeen itteewu daaru Ndiaye TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si Darou Ndiaye TV. li may tàmbalee mooy liggéeyu Serigne Maguette ci kaw suuf Serigne dafa gis ne yonent yépp ak ku mës yëngu ci diine ci àddina ba faw koo ci yee mu jóg nga ne ko lu doon sab liggéey ci àddina lu mu lay tontu taxawu doomu aadama ba mën a am ak texe boo ko ne loo ci dolli mu ne dara kon foofu lañ fi tàmbalee foofu la yem sëriñ maa gi gis newu tool boobu moom am na ci sasu rëy mu daal di dàggit goppam nag gis ne dara gënul gaaw ci yóbbu nit àjjana defar ko gannaaw ba nga defaree jikkoom tàggat ko ba noppi mooy fexe ba mu mën alxuraan alxuraanul karim moo tax mu dox ci jéego yu baree baree baree bare ci alxuraanul karim gis ne moom lépp lu nit di am rek moo la gën moo alxuraan moo gën nit ñi moo gën yonent yi moo gën malaayika yi moo gën lépp moo gënal yàlla lépp mu xam ne na kon dara gënul gaaw loolu kon na fa daal di nekk lu mu ci dolli dolli ko ci waaye loolu moom moo tax dundam gépp mu jeexal ko ci yar ndaw jàngal ko alxuraan ba tey ji xam naa ne ñi ma mën a lim nga xam ne sëñ bee leen jàngal sëñ maa leen jàngal wala ke leen jàngal sëñ maagee ko jàngal day ah, am na fi daara yu të bariwul lool te mën nañoo taxawal juróom-ñaari junni ci ay donga yoo xam ne directement sëñ maagee leen jàngal wala moo jàngal ke jàngal loolu loolu ab xaaj la ci des na beneen xaaj boobu danaa ci dem sëñ Cheikh Dramé demoon na ci waaye danaa ci béyaat sama laaj kon dara gënul gaaw ci lim doon def ci xeetali doomu aadama ci yar ko ak jàngal ko tàggat ab xolam ci ci diine ba mu xam ko waaye sunu borom bi nag njukkal na ko njukkal lu wér lu ñëpp teg seen bët mooy tey ñi nga xam ne alxuraan ju jóge ci sëñ Maguette lañ yor ci laa jaar waaye yemul foofu ñi nga xam ne itam ay doomi soxna lañu woon mel ne Talla Ndiaye mi toog te liñ doon def muy seen métier mooy dem Ndakaaru buñ demee ba seen daara taxaw ku xamoon ñu jaar sa palaas toog jox la ñu jox leen bag ñu toog di wax lu ñor lu ñorul te kat jigéen ñey tax place baa dox duñ la duñ fa ñëw mukk fekk jógul kon borom place bi bëggul ñu toog fa ñey jënd bëgguñu mu toog fa suy dem borom place ba jox ko la mu man deux mille wala cinq mille mu ne ko fu diw nekk fi mu ne ko tourneel ci koñ bee foofu la place am nekk loolu la defoon ne moom foofu la toll loolu nag yaatu woon na ci réew mi lool te alxuraan yi wow lañu àndaloon waaye munuñ gaal gu ñu yorul ceeb bi lañu amoon sëñ Mouhamadou gi nag ñooñu la ne pëkk pëkk ne njool dama bëgg nga yow te xam ne te bàyyi nelaw yi am ponkal nga da war a faj aajo yi nit faj say ajo defar sa dund defar dundu doomu aadama loolu mooy internat yi mu kër ya Ndakaaru ba muy door benn la njëkk a def ci saalam dem naa waxtaan na ci ak man ne ma dama bëgg a def fii internat kenn du génn sëñ xaadim ñang la ko jox sëñ xaadim ñang moomu daara yooyu ma lim ne mën na noo dajale juróom-ñaari junni te du bari bu ci ëppalewul kenn ëppalewu ko ba ne benn ñaar ne ñett ci sëñ xaadim sëñ xaadim moo yor dongo ya ci biir saalu sëñ Muhammadu gi ba mu xëy génnee ko kër ga wut feneen fu gën a yaatu ah manjaay di ñëw muy muy jox classe ma jóob di ñëw muy jox kalaas ñooñu ñëpp nag tey kenn ku nekk yar nga si kim bu gudd lool gaare passeroo ci ron étage te sëñ Moodu gi moo tax loola nga am ko loolu ba tey ci liggéey sëñ maa gi la bokk kon loolu alxuraan yi sëñ Maguette la indirect waaye directement yi mooy ki sëñ gi jàngal ak ñi nga xam ne moom sëñ Maguette jàngal ka leen jàngal kon yàlla njukkal na ko lu rëy ci biir ak dundam eh, làqu na ba am ay ay juróom-benn fukki at liggéey bi di gën a am doole tabax bi ma jàkkaar lool fanweeri millions yi tegal benn la jumaa ji ma woon gannaaw ñaar fukki millions yi tegal benn la loolu lépp nag kenn mus cee def communication taalibe yaa ngi ni toog ma jàkkaarloo kenn musul am communication dajale leen nag di way jëwriñ ji lu ay mën na ko def déedéet dañ koy yëgle rek dalu toog jumaa ji ki ko tabax mas na ji sëñ maa gi jébbalul ci moom jébbalul ci doomam nee na liggéeyu sëñ maa gi la gis mu bëggee bokk ci nag njëriñ ñee jëriñu sëñ maa gi waaw loolu moom <coughs> waa ngi yéen ñëpp mën nañ ci seede Ah, néeg bi nekk fanweeri million ak benn sëñ Mouhamadou gi mii man maa rëdd pala bi ci sama loxo ci big fekk ko këram ne ko ndax buñ ko defee ni dana baax mu ne aw dana baax ma di ko làmbatu ma ne ko dama bëggoon a maa dem ci daam sax bi ñu wàññi ko mu ne xanaa wa yokk sëñ ma gi yéenu lëpp lii ma ne kon baax na xam naa fa mu nekk moom ba ko daam defaree baagal ma del won ko ko mu ne kañ nañ ko nañ ci daal di jublu moom mooy ñëw sama kër wàcce wataam yéeg ñaari étage yor million bi ci loxaam ma ne ko teeg maa ngi doon wàcc mu ne tuyaaba ji nga bëgg mu wàññi ko du ma ko nangu at mu nekk juróom-ñaari at at mu ne million la may njëkk a jox doo nga génne listu waa këram sëñ Cheikh gi diw diw di bàggal nii sama waa kër ak télé bi jot jaaral ci moom direct waaw su ko mësee joxe it man sama million bopp laa ci teg du pour damu de pour leeral rek doog a doog a tàmbali nag jàkkaarloo nit ñi di soññee soññee bu yem ba lépp xëy ba xëy lépp xay yem mel nii mu mel waaye nag boo ne sëriñ Mouhamadou gi teg ma ci boo demee ñeent ñett ñeent wala juróom ka ciy tegu ci montant bu muy joxe sëñ sëñ maa gi dundul ak moom lu mat at sëñ maa gi génn àddina mos a sëñ maa gi da koo dégg rek waaye moom itam nee na fi sëñ maa gi jaar ak li mu def da caa bëgg naka doon te wax jumaa ji def moom itam mooy nekk juróomeel at mu ne wala ñeenteel loolu moom bëggul kenn tudd ko waaye nag ma leeral loolu loolu yëpp nag yàlla nangu liggéey sëñ ma gi moo tax mën a am na tey ay kër tey buñ tàmbali woon lu mel nii daañu wax ci rajo bi daañu publicité daañu def lu ne waaw ba mel na ko ràngoo ki dënd mu doog a sotti lii nag kenn amu ci yoon te yéen a ko def ànd ak sëñ Modou mi jiitu xàll yoon wi jiitu ci lu ñuy def moo ci njëkk a def doog a doog doog a soññee waa kuram moom mayu leen jàmm loolu la sëñ Maguette gi yàlla da koo njukkal ah mbooloo mi fi daje it may xam le ne moom addis wax na ne képp ku am xam-xam te di ko jëfandikoo màggal la ak màggal yàlla ñoo tolloo kon nag daje fi ne dañuy dajeel sëriñ Maguette yi ak xam borom xam-xam yi fi daje ak sëriñ Modou li mu liggéey loolu loolu képp ku woyofal loolu nag dafa mel ne yow a ah, gone de moom kaay ma yónni te neexal la foore ji ma doon jàngal sama maam la sañ seex say nee na de li mu àndal am nag tontu ma ne ko tontu mu àndal mu ne boo dimul duma la neexal kaay ma yónni te neexal la boo dimul duma la neexal ga ci biir wax ji kon màggal ko màggal yàlla yit ngir màggal jëm ku bàyyi màggal jëm ji it da ngay mel ne woyofal nga yàlla loolay tekki kon bis bii nan fii gën a daje te jéem a gën a am pas-pas te xam ne moom ngëneel la lu leer nañ lépp lu defal sëñ Macky waaye defal sëñ gi rek sa fajuk aajo ca la dana ca dana ca jóge ñu ngi soññi ñëpp waaw gan ñi sant sëñ bi sant na ñëpp nee na mënut a lim par kenn nee na xolam daa tooy mënut a wax nekkoon kon micro moo ko jël bopp waaye sant na ñëpp nee na ah daayira soppi sëriñ Macky mi ngi ko créé 2005 ñëw sama kër nu yandu ah, baagal mën nan dem sama kër dem mën ne damaa bëgg def dayrëb soppee sëriñ maa gi bu ne doo nga yeeg taalibe yi day xat léegi nag damaa bëgg boo ma ko nangulee day danaa ci sama xel daana dal nga jiite ko mu ne ko bismillah jekk naa kero dañ ko samp ba jii li ñu liggéeyal sëriñ maa gi tey ay juróom-ñaar fukki million ñett dem na ci boo demee kër gi ca Tuuba ak jumaa ji ak kër gi nu nekk loolu lépp uh, seenu yaakaar ak liggéey liggéeyal seen bopp ngir ëllëg moo tax ngeen moo tax ngeen fekk ko ci woote bi man mi jiite it mosuma ci werante kenn ku ma ne ay rek nga ay ca wala sax nit ki dana joxe loo xam ne fii ne jàpp ma ne mën na ko waaye nag lépp yàlla na ko yàlla nangu sëñ bi ne sant nañu sant na soppi sañ mag yëpp ne ganam ñi mu ñëwal gan gan yu tedd yëpp sant na leen ñi fi ñëw tey sant na leen samp na dayra gone yu ndaw yi nga xam ne moom bu dayra bu njëkk bi nekkoon Euh, am ceeboo ceppal moo gën a tooy am ceebala seen taxawaay ñoom itam waaw samp na ñi nga xam ne seen maam dafa nekkoon cosaanal kër gi ku ñëw da ko fee muy waa kër sëñ ma dem ba sekk lépp lu yëngu ci kër gi ñoo ñooy njëkk a jóg waaw waaw andiwu nag adi lam àndal lépp te bu subaa bu laajaan bu laajaatu jaar fa ñu jaaroon tekki mënuma dugg ci lim bi waaye xam ngeen ne néegu néegu wanagu sëriñ maa ngi moom mooy jëleerlu ak ak jabootu Ibrahima Mbengue ak Aliou Ndiaye et cetera bu ma bu ma limee damay damay dem ba dootul mën a dem waaye yéen ñëpp daal yàlla leen yàlla defal paju aajo sant na leen gërëm na ñëpp nee na nag la nga ab micro di ko lim par benn ma itam dama ne ko naa tënk rek ñëpp moom ñëpp ngi ci biir kon damay daal di jox sëriñ Bouna Sylla moom itam noo bokkoon nekk fii ci kër sëñ bi li mu ciy mën a nettali li waxi sëñ bi itam te lépp di njariñ xam na ko sëriñ bi moom dafa am tey ay caat fii ci baat ci baas bi bu dee sëriñ Modou gi mooy caatam ci ci askan bu dee Taala Njaay mi toog nag man maay caatam ci ku mu yar maay caatam ci ku mu jàngal alxuraan mu mokkal kon nag loolu lépp nu def ko cant rek boo na mi ku sëñ bi wóolu woon la tafoon ko ci boppam kon léegi dama koy jox kàddu gi bu yàgg lañ ne woon na wax mene boona du wax ak mbokkam yi war a fekk ay waxam waaye jéelu ak seegu ñun nañ ne ba mu mujjee ba ñu teew ndax la muy wax dañ ca am wàllu rëy rëy te dañ ca am kontaan kon maa ngi gërëm ñépp maa ngi sant ñëpp bàyyiwuma kenn mboolem mbokk yi julli julli nekk yëpp ñu ngi leen nuyu te di ñaan ne yàgg fa daje fekk fi sëriñ Modou gi mii doon ko xam ne moom noo bokkoon nekk ngoneem noo fii waaye ni ngeen ko xamee ci mag bi ne la meloon ci ngone it de nii mu mel ne la mas mel soo dékkiwul jékkiwul mel lii de da ko da ko mas mel te la bëggee woon alxuraan it sëriñ maa gi nag day koo xam ne yàlla moo ko dimbalee alxuraan ndekoon mën ko bañ am ndax mag la ko jànge ndax nee na ma jekk naa bay magum jëmb te xaw ma dara nekkoon nag fii magam ji wax maam sayar xarit nee na sayar bëgg ma lool ne maam sayar ku baax la bëgg ko lool wante nee na dafa maa jàngalul alxuraan nee booba moo gisee kuy jàng dama koy ñee dama koy ñee moo tax sëñ maa gi bi mu jóge fi ngeen dafee jóge dem ci mbokkam mu ñuy wax madu jaara gi aw xeetama fa la dem fekk booba daaraa nga fa ju ñu wax euh, daara Babacar gi nee ma dem ca daara ja donga ye di ma sa di ma sa ba mu yàgg bu maj gisati ma xam ko nee na man ne ca ba mu yàgg ma mën a sama bopp ne ba mën a bind sama bopp nag la la laxas nag kuñ ne mën na alxuraan rek mu dem fa bay yenu alxuraan ji mu yenu bu su gi noor na fi dem na guy mbay dem na dëkk suñ yaar mbay kii mbay bi waa dem na fa dem gëti yaaram waaw sama maam ëstu mi mu bokkal ndey te bu ñu bàyyi moom wax ne fekk naa ko gëti yaaram fekk naa ko uh, uh, badar ne ba ma demee badar ñu naan soxna ëstu de sa sa càmmiñ li mën alxuraan bu yàgg ragal jële ko bàyyi ci daara ji nee na gis naa ba jant soo ba ñu reere bu na dongay di tari alxuraan di ca boole seeni waññi naa kang fóori njóogu fóoti njaay bada doo fi ñaaw ak naa kang fóori njóogu fóoti njaay loola réeru feeñ nga xam ne booba daara ji mu nekkal ñëpp moo leen di seetal ndax alxuraanam ju rafet mu nekk fa nekk fa ba mu yàgg mu ñëw njee séefur bam nee ci daara ji sax donga bi mu jëkk am donga bi sëñ Maodo jëkk am ci ci àdduna Sylla la sant muy Abdou Sylla waaye o xeet na ma Abdou Fër njaay boobu mi ngi ci daara ji ñu ne gannaaw Maodo xeet ma te ma nga nañ ko ko yët Abdou Fër la jëkk jàngal mu nekk mu nekk fa ba mu yàgg mu ñëw mu ñëw njëy séefar la ñëw waaye lim nekk ci daara ji lépp yëmul woon ak kenn ci lenn ndax moom nee na mas nañoo sax sax si nji gerte booba dañ leen di nattal ko ne nangami àndaar ne bañ ma nattal bañ bañ ñuy nattal ñu ne ma yow kat gaawaay ñaar nit nga amee kon boog yaari wàlla lañ le sédd waaye nee na bañ ñu nattalee suñu saas nu jóg di tob ne ba ma ne cëpp-cëpp sama larmet ne sama tànk dafa a ci pan moo pax moo xam ne ëkk da koo taatan ne ëkk bi jam ci sama yel bi ne nga xam dañ koo xar dëbb ngeer ak xorom takkal ma ko ci ne ma yow kay booy bu nga ñibbin xam nga ne mënatoo liggéey nee ma leen ah mën na maa na liggéey waaye billahi moo ma ne keroog maa ci sase noonu la ma ci liggéey doon koo xam ne it mas nañ ne ki nekkoon daaraam da leen doon sembloo gaa yi ku nekk naa man bu subaa maa fay jëkk ñi naam fajar maa fay jëkk man ne yëkkamti ma ñu nelaw ba ma ma jóg rek ne ba ma dégloo ba déggatuma kenn wax ma xam ne nelaw nañu ma fekk waaju njaxlaf ma yee ko mu dema jox takk may semb may semb ba ci fajar gaa yi riir seen i ngemb rek fekk sax mi ca kaw noonu la melan ci koo xam ne kii daanaka amul ko yar mu jóge fa ñëw njëy seefur waa njëy bëgg ko lool mu bëgg leen lool nekk na fa ba tuut sax mu mënoon na faa lang waaye maam sayar moo ko fa fekk maam sayar magam bi mu bokkal bàyyi ne ko maa ngi kët léegi ñëw mbaam ma ñëw rek léegi sama doole néew na danga ñëw yor ma mbaa ma ñëw nga yor ma waaye nga nekk njiy ma nekk ngeen mu mën a tudd ne sëñ maa ngi ko ah loo ci bëgg rek mu ne ko ah, nga ñëw ngeen nag ba mu naa defen mun ta am waaye man loolu laa bëgg sëñ maa gi na ko bisimilah waaye nag danaa danaa sartante ak yow maam sar na ko lu ni sartante mu ne ko daal li ni sartante moo da ngay dangam sa bopp maam sar na ko loolu kenn nangu naa ko waaye ne keroog ma may jógee njéey ne daa mel ni nit dee ci dëkk bi ñuy jooy ndax bañ mu dem nee ma xam ne dem béjjën fi ko këpp la jekk ba mel wërtu fee jóg aste fañ ko kippee woon ne loolu ma tax ma nag maam sayr ñibbi si ba mu di dikkee maam mu mu goral maam sayr àll bu yaatu maam sayr di seex mu goral ko àll bu yaatu di ko liggéeyal di gont boppam léeg-léeg sax nee na ma gont ci tool sayr ba mujj li sayr moom ak li maag moom kenn xàmmeetu ko mu ne ci loolu ne ci loolu ba maam sayr ànd naag moom ba ci sëñ Daaru Asan Njaay seen wasila maam sa er ne sëñ Daaru maa mi gërëm naa ko ngërëm lool bu na dee ñàkk naa naa te moom mu am sëñ Daaru nu ko yéen am ah, mu nekkoon ko xam ne bi mu ñibbisee bi mu liggéey la maam sayer ba maam sayer jóge muy liggéeyal ba tey magam maam yibra xëri di rekk sëñ sayer di ko liggéeyal di ko liggéeyal waaye donga yi gën a bari kër gi yaatu ba léegi mënatul a nekk gën kër ñu door a kii kër ñu door a tàggooloo kër gi booba dong yi bari na ba am na ci ñooñ da leen boole woon ak ba Ibra Mbeng talibaam bu mag yóbbu yóbbu leen jokkul am ci ñoom ñoom boole doomu magam muy na jàmbaak anta yóbbu leen bu ñu war ñaan yi kees mu des ak ñoom njéen noonu la def di jàngale di bay mbay moo xam ne ni mu ko daa bayee suñ masaa bay bañ ne mbay mi ñor na mu ne dem leen fàqi mbool bon fàqi mbool bu dikk da koy wàññi yent ku bëgg bu kenn mu teg ko nee ñu dindi ko asaka bu dee ñebbe it noonu dañ koy def dañ koy def euh, ci ci bu ndaw bu dee juróom-ñeent bëgg fukkeel ñu teg ko ne noonu la daa def doon koo xam ne musta nangoo dugal dara dara dara ci boppam loo xam ne ci buur la jógee lu jógee ci buur sëñ maag mus koo jege da ko da koo ragaloon sax ba am na benn chef de canton ta ko mosoon a jox aw fas ñu ne ko ñu indi ko ne ko moo la jox fas bi mu ne mu sañoon saw ci kër gi de bàyyi mbeng na ko fas bi kay lew na la ndax moo la ko jox ci tey ba kam ndax yow laajoo ko ko mënu ko léewu ma yëfi jàmm rek li ma yëg bàyyi ba na ko ah xam naa mu jox la fas nga di ko delloo de kersa lay doon mu ne kon nañ ko jaay séddale ko ñu gën a néew ci dëkk bi ñu daal di koy jaay séddale ko ñu gën a néew ci dëkk bi ba àggal mu dem ca dàgg ji wut ca saakum ñeent mu ñu seem ba mu fees jox ko seef boobu ko joxoon fas wi ne ko dama la ko jox kafa ka moom mi ngi fayaat fas wi te te ñi ko lekk noonu la ragale woon loo xam ne lii ci ci ci buur la jógee doon ko xam ne itam bu dee ak yéwén rek mi ngi yem fi moom ndax koo xam ne nee nga yett jaaxal na ma sëñ maa gi na yett jaaxal na ma leble ak denc ak nit ne yow nga naa ko duma sa morom sëñ maa gi nee na daal yett yow moom munu ko du ko def te ne ko fay def jaaxal nga ko ndax ne nit ki am ba man koo leble da ko war a sarxe am ci yàlla waaye wur ko leble nee na nit ku na denc yàlla nga ba xam ne yàlla moo la denc nee nga dem di dencaat ne yàlla mi la denc bu jëkkee soxla dencam sob denc def ñu ne ko day niir mun a man loolu tax ñu mi maa denc sëñ maa ngi naan moom ñu mu denc waaw nee na duma sa morom it baran ko war a wax ñëw wax nit yow mal xiyaam daa war a ñëw nee nga jéggi salaat ba àggal moom munte jéggi nga door ko ne yow kat duma sa morom mu ne boobaa boo ko mun na dimbali dina jërul nga di ko wax mais boo ko mun na dimbali jërul nga ko wax moo tax moom ku sellee ne moom bariwut am wax dëgg yàlla nag da daa wax liggéey ak jaamu yàlla mooy njër mi nga xam ne boo ko xasee dog ne boo nga lagg kon dug daa réer moom ci loolu rek la nekkoon liggéey ak jaamu yàlla na wax euh, ku ne nga wuta liggéey bul jaxasoo ak moom bul defa ak moom dara waaw nee na boo ne nii suuf si bàyyi ko mu def ab dank lu waay mën a def lu dul liggéey liggéey ko gën nee na boo ne nii suuf si bàyyi ko mu tasaaroo lu waay def lu dul jàng jàng ko gën moo tax ci loolu la soxoon bu nawetee mu liggéey bu nooree ñuy jàng nun lin daa bëgg moom boobal yelwaan na xew waaye ay dongaam kenn musu leen gis ñu yelwaan moom lin liggéey lay wañu ku dundale nun ko noonu la daa def bu sa kër bàyyi nekkoon nii sax dootu ci lekk këram ngay lekkee noonu la noonu noonu noonu la doon def ak di yeete daan wax baa doo bu ragal naaj ne naaj donc mu la ragal ne leneen lu muy ragal amul ne leneen loo def na ñimi bu ko rek na lu ko raw moo tax mu ne ku nanguwutal liggéey sëñ baa ngi ne bul jaxasoo moom mais bul jaxasoog moom ah, da daa wax ah, ku nangu wut a liggéey bul jaxasoog moom ci genn wet ah, doon ko xam ne it ku daa dénkaane la lu bare bare daana dénk lu bare ndax nee doom bu nekk ci biiru bi ndeyam di yëngatu sëñ maa gi ne booba eh, yoonu ba sàq lay làmbatu nee na bu juddoo dong nag ngir ma te bu ko wàccatee dafa dem ca dëkk ba waaw sëñ maa ngi def ne doom bu nekkee ci biiru ndeyam di yëngatu ne booba yoonu ba sàq lay làmbatu ne bu juddoo nag dong nag ngir ma te bu ko wàccatee dafa dem ca dëkk ba waaw mu ah, koo képp koo xam ne teg nañ la ci ak jaar li ci bàmmeel sëñ maa gi ne wàcc daw ngay bëgg ndax nee nañ yaar a koy waral dangay ngay siiw xéewal gu neex goo xam ne dangay ngay yàkkamtee wàcc ba gaaw caa àgg wala nga siin mbugal mu tàng moom da ngay bëgg a wàcc ba bañ caa àgg waaw ñu ne wéetaayu bàmmeel sëñ maa ngi ne déet bu leen bàmmeel wéetul ñaara fa ne kii ñu béggal ak kii ñu buggal te sëñ maa ngi ne kenn wéetu ci sëñ maa ngi nee na ñoo ñaar kenn wéetu ci nee na ñoo ñaar kenn wéetu ci nee na ñoo ñaar kenn wéetu ci sëriñ mu ne yet lañ leen doon daye mënuñu ko yette yi lu mu xeex akum koom ak fan gudd nee ña ngay wut am koom ñu ne koom yi lañ koy doyee ñu ne dañ koy bu ndax bëgg a le sëñ maa ngi nee boo wutee man am nga sëg ne sëg bëgg di gën a yokk mu ne xalaat kooku kon liñ gën a doy ko waaw ñu ne ah, xeex moom luñ koy doyee ñu ne dañuy koy faje ak yabel de ne boo xeexee ba àggal la nga noon bañ ñu wax la ko dees na la wax lu ko ëpp mu ne kooku kon lañ ko doon doy mënuñu ko mu ne ña ngay sàkk fan bu gudd ñu ne luñ koy dee nañ ko dañ koy fekkee ndax ragal a dee mu ne loo fi yàgg-yàgg na bis bu ne tey la boo sañoon ñu foom waaw ne boo sañoon ñu fomm ah, sëriñ maa gi mu ne àdduna yàlla lañ fi wut ak alal ak jigéen waaye nee na boo dee wut wutal yàlla kese kese bul wut leneen ne boo ko amee danga am yàlla danga am alal da nga am jigéen waaye ne boo tébee rek jëkk wuti alal ba am alal ne da nga am alal de da nga am jigéen ndax bu jigéen alal fa alal ni mu fekk ba waaye doo am yàlla mu ne boo jëkkee tam nag wutu yàlla wutu alal tëb rek wuti jigéen ne doo am jigéen ndax jigéen bëggul ko amul dara doo am jigéen doo am alal doo am yàlla sëñ maa gi mu ne yet fo ñu sant bu leen fa yet fekkee dootu ñu nangoo toxu waaw nee na ñàkk fu mu sanc bu ko fa tayal fekkee dootu nangoo toxu mu ne wopp fu mu sanc bu ko fa ñàkk lekk fekkee dootu nangoo toxu waaw mu ne réer fu mu sanc bu ko fa rëy fekkee dootu nangoo toog kon ba xanaa mën na maa yem fii kon xanaa maa soxla si borom benn ñoom ñaar ñu àndoon ànd si nag yi ànd ci ànd bu jëkk ba léegi waa këram ñëpp ñëpp ñëw nañ te jëkkum ngu ci ren at bu jot dañuy ñëw dañuy dañuy bertul sax ndax dama doxane xew dañuy yebal kenn ñëw ay ñoom dañuy ñëw kenn du des loolu kon ñoom seen teewaay doole na taal jotaay bi lool ñoo ngi leen di gërëm di baax a baax di leen ñaanal te sakku ci ñoom ñaan yàlla ci maa ngi nekkoon rek te moo di ak ak njub ak njub njub xocc rek loolu yàlla na ci yàlla saxal gërëm nañ leen lool ngërëm loo xam ne amul fu mu yem daana beral li cant itam suñu suñu mbokk suñu doom di sëñ Modou Xayri Jóob mi nga xam ne mooy taaw sëñ sëñ Modou Jóob bu boobu nga xam bii kër yi tegal jàng nañu ko man man di ko war a sax duñ ko taal ndax seen liggéey bu xat seen jamono ji a ji xat waaye li ñu xat xat teewul ci kër waaye xëram tax mu daal koy toxal jigéen daal bàyyi lépp ñëw teew si tey kon moom wax dëgg yàlla xam na daan daan ko doolee sant di ko ñaanal yàlla sa borom ba li mu yenu muy lu diis waaye ndax ndax dafa dafa wutu nit ku màgg ñu suñ mor ko yàlla sa borom ba taxawu dëgëral ko te mooy affaire ko yéen bu baax a baax a baax ci barkeb sëñ Mor moom nga xam moom moo doon moo doon mu artiste bi donc boroom liggéey bi donc gërëm nañ te sant sant ñëpp rek ñu ko suñu taal waxee rek ñu sakku mu loo kon xam naa dañuy ñaan waaye nag ñuy sakku kenn dem na nga الحمد لله البديع الأكرم saa su ngeen ni wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ daaru Assane Ndiaye gaaw leen gaaw ngeen abonné si Darou Ndiaye TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Darou Ndiaye TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre